ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykatim kam mangala yaare

waxtu bi waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim buñ sant yàlla julli suñu di ñaanal sama papa yàlla na yàlla xaana def góorgóorlu di ñaanal sama yaay yàlla na yàlla bàyyi ba si kanam kanam di nuyu sama mbokku mbër yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ñëpp mu limee damay juuma di nuyu assistance bi di nuyu sama gars yi di nuyu waa Thialé bi daaw seen fay waa Thialé ak Jom waa Ndiaye ak Sër Bassar Bassou waa Fimela waa Bérékit waa Ndanjaay waa li ma war si combat yi di nuyu ñëpp boo demee damay tudd di nuyu sama gars yi ma àndal bi waaw. waaw léegi Sathies. Sathies bu ñu seet sax. Sathies lan moo tax nga jékki-jékki jàkkaarloo bu rëdd ne ko doo tax am jàmm doo tax am jàmm tàkk bis ba déwén. déggoo naa wóor nga woon. ah ah bu tax a woon mu ne kii sëñ bi di jàmm ñu ne ko lu tax mu ne pour bëri loolu la ñu wax. ah waaw kon kay ñoo sëñ bi jàmm la sax. déedéet kay li ñu liyee moo métti. bëri na xeex. foofu loolu. yàlla ma yàlla may la. maanaam maanaam daal bët bu yàlla jëlee. amul maanaam amul lii amul léegi. coow yi mën na bëri wax ji mën na bëri. léeg-léeg yéen ñaar yéen ñaar sax am ngeen di yéen ñaar amateur yi ñoo ci ko seen combat bi sax am ngeen tey combat bi yéen ñaar ñi ko bëri. wala bëri tey combat bi sax am ngeen ko. man la neex combat bi mel nii. ah yow la ne su ma ko jëlu woon. wala région bi jël ko ba mu ko ba mu xamante ni bu ko nee xamal. waaye wu ma sa lan la maa liggéey ba ñëw sa kaw. doon naa wax ni la leen waaw waaw waaw waaw. yaa ngi leen su ma ko jël woon ay na ay yàlla moo leen jël comme daal ñoom amul mais saa ñu koy wér comme daal ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom suñu mën a sama amul la travail si laamu ji ku ma génne nit ñi leen nay xool defee parce que liggéey si laamu mi ngay wax nii dafa amul sens dafa mën a mën a di nga gis ko am six combats dem bële ko am ay ay douze combats du la xam nga wax ko mais mais mais tey jii ñu gis ñu gis Reug Reug boobu léegi mi ngi compétir mais yow boobu léegi compétir woo est-ce que war ngaa ci bàyyi xel bu baax a baax ndax ndax li mu boole yëpp muy MMA ndax MMA xam nañ ne moo tënk sport yëpp yëpp yëpp looy wax ko looy wax ci loolu. non non boo xoolee daaw daaw jëli laa bëri bu bëri daaw kon maa ngi compétir. mais dañuy compétir ci MMA bi. vraiment fii fonctionné wu fi ah déedéet. Thiès la mu dëkk Sa Thiès bii il faut am nga dayoo bi mu toll ak adversaire ay qualité bokk na ci li tax nga ko mën a bëre tax na nga jël ko parce que ko dans le méchant bu lay méchant d'accord mais quand même moom nee na ko liggéey bi aussi bis ba naka ngeen koy waajale nan ngay waajale sa adversaire bi. su ko nangoo ko tey dérangé wu ma tey nga koy mooy xalaat yow beneen bi ci des saa yi di nga sacrifier sa ba jo ba topp ba ñu bëgg nit ñi yéen ñu bëgg ñoom gis nañu man ak benn mooy combat bu ma doon wékkale wax dellu jox leen leen moom di ci remercier percussion ak matal ak staff yëpp da leen ñaar aussi tamit waxuma bii kase ak li seen kanam bëri na yeneen a neex ñu ngi suñu kanam rëtëb dégg nga question bi dama la koy jox tamit percussion ngi nii ragal naa ngi nii di ma bàyyi ma fenn musuma toog dama jox ma saa de dañ maa përbël saa yoo ma leen ca du ma ko laaj leen bu ngi nii di ma bàyyi ma fenn waaw léegi mu dafa ndànk rek. li muy wax moom mooy. mais ma wax sax dafa maa may doon. mu doon mooy yóbbu nii. sama nite sama réewte sa yoon nekk su nekk seen cadre bu lamb dem nga ñëw rek comme bu fekkee beneen bi beneen bi Sa Thiès lamb moo ñu boole jàppee xaalis bëri fay ma xaalis bëri wax nga dégg làmb Sénégalais ñoo soxla combat ma dem samay preuve yaa may dégg waaw. mooy mooy mooy mooy voilà balaa ngaa ñëw ci bis damaa wax li may wax ñu toog bokkul est-ce que yéen a ngi baax. gars yi gars yi ñu déglu rek gars yi ñu déglu ntoli fii akoto man lu leer laa la wax su ma la mënoon bëri moom wallaay la ci ñu ma war a may sax di ko may sax dama bàyyi yow dama may sax du ma la bàyyi ba kër ba say yow dama bàyyi ba soo bis ko mais li ma yor nii xam ngeen ko dama lay wax xam na ko keneen ak keneen xam na ko dama bëgg loolu saa des saa des bis ko ba wallaay laa ci bilaay bilaay wallaay bis ko ba da nga gis cër Roger. waaye ñu gaaw waay ah. ñoom ñaari ndaw ñoom ñooy ay xale yu tuuti ay xale yu tuuti ay xale yu toll